bonsoir à toutes et à tous bienvenue daleen ak jàmm ami internet yu Sénégal 7 ci seen grande interview bu Sénégal 7 comme nu ngi koy defee euh, saa su ne aujourd'hui on reçoit le ministre conseiller euh, Zator Mbaye euh, bokk ci parti AFP bokk tamit ci mouvance présidentielle Benno Bokk Yaakaar salaamaaleykum monsieur le ministre. waaleykum salaam soxna Ndiap maa ngi lay nuyu bu baax euh, di nuyu wale say technicien mais également yi nga xam ne ñu ngi may euh, nopp ak bët bien sûr. d'accord euh, di lay jaajëfal aussi si uyu si bi ñu uyu si si fii dans nos locaux si Sénégal 7 di lay ndokk aussi si at bu bees bi ñu nekk. mais maa la ci gërëm ci invitation bi parce que loolu c'est une marque d'attention sa fa la bokk. Euh, ñu invité ma fii ma ñëw kontaan nag gis ay sénégalais yoo xam ne ay jeunes sénégalais la yu investir lii mu am mbégte euh, dafa wane ne vraiment boo toogee sa kër mën nga réaliser de belles choses maa ngi leen di encourager bu baax di leen féliciter di leen ñaanal yàlla une carrière très reluisante ba Sénégal set dem ba am télévision dem ba am vraiment lépp li nga xam ne journaliste war na ko am maa ngi leen koy ñaanal bu baax. jaajëf euh, monsieur le ministre euh, ñu jàll maintenant suñu vif euh, du sujet mu nekk actualité politique bi mun nañ wax ne fu mu toll nii Sénégal avec la montée en puissance bu collectif ñoo lank ñoo bañ nga xam ne lu ko gën a sos moo nekk fu mu toll nii la la kii yokk bu ñu yokk ñu nemmeeku si yokkuteef électricité bi ak teg loxo kii di Guy Marius Sagna yow ban jàngat nga am euh, si euh, bile collectif. alors <clears throat> je pense qu'ils sont dans leur rôle de faire euh, de faire ce qu'ils sont en train de faire parce que jàpp naa ne réew ni mu amee majorité la amee opposition la amee également société civile ñoom bu ñu jàppee ne am na loo xam ne xëy na neexu leen sañ nañoo organiser wu parce que le Sénégal est un pays démocratique et ñun noonu ne sommes pas des partisans de la pensée unique le président de la république d'ailleurs wax na ko ah que ku bëgg organiser mën nga organiser mais na nga organiser ci lu jar organiser mais aussi nga nga bañ a embarquer wala emballé sénégalais yi ci ay faux problème parce que aussi les gens souvent cherchent des eaux yàq la ñuy wut pour mën a du exister te jàpp naa ne souvent il faut que nit ñi aussi euh, am liñ naan raison garder voilà def euh, seen euh, premier rassemblement si euh, weer bi ñu génn si atum 2019 bi rek mu nekk une forte mobilisation yéen ñi nga xam ne yàgg ngeen amal ay manifestation xam ngeen ni wuute na ak trop ak manifestation yi nga xam ne yàggoon na am fii Sénégal mun nañoo wax ne sénégalais yi ñoo ko defal ñoo ko moom moomale seen bopp les sénégalais du tout bord lañ gis ñu génnoon loolu est-ce que yéen waaye politique yi nga xam ne mun nañoo jàpp ne yéen a bokk ci classe politique yi nga xam ne moom la ñu nemmeeku fii Sénégal loolu nekkul la ñu tiital est-ce que nekkul ne sénégalais yi fu mu toll nii dañuy won ginnaaw politiciens yi ñëw ci adhérer ci euh, activist yi. vous savez man gëwuma activiste parce que ñi ciy wax activiste ñëpp il milite dans les partis politique ah euh, vous avez parlé de Guy Marius Sagna mais il milite dans le PASTEF parti de Ousmane Sonko. mais tu peux être activiste et être non, militant c'est-à-dire parce que quand les gens te parlent d'activisme un peu c'est connoté comme yow sax wax nga ko que nit ñi gëmatuñu parti politique yi ñu ngi dem alors que ñoom seen biir dañuy nekk ay euh, ay bukki yu sangoo deru béy maanaam ñemewuñu comme ñun afficher suñu coloration politique ils préfèrent dire aux gens ñun defuñu politique politiciens yi ay dëmm lañ ay nooxoor lañ alors que ñoom ñëpp ku ci nekk ci ñoom ñun xam nañu parti bi ngay militer. nga fësal ko wala nga nëbb ko nag voilà donc loolu moo fi nekk mais amu ci kenn ku nga xam ne d'ailleurs même seen mouvement yi saa ñu ko waxatee te parti politique yi bokkuñ ci maanaam fiasco lay doon. ah mais mun nañoo wax ne bii moom euh, benn parti politique nekku ci mun neen mun neen wax ne euh, jaaykat yi caaf bi journaliste bi euh, turkat yi nu mu koy waxee sax minebar bi ñoo nekkoon kaw ci rassemblement bi. xam nga Sénégal kay. kaay seetaan moo gën a yomb. parce que ñoom euh, mun nañoo wax ne ñoom dañoo woote lu soxal Sénégalais yi te mun nañu wax ne politiciens yi de tout bord mu yéen ñu nekk pouvoir ak opposition bi sax lu ñuy gën a euh, waxtaanee nekk loo xam ne moo soxal Sénégalais mais ñoom dañoo wax loo xam ne moo sensible ne carrément dafa doy euh, naam sax teg ñu lépp loo xam ne ci kaw askan bi mu métti mais yokkuteef électricité bi dafa nekk loo xam ne dafa toucher toutes les couches. mais jàpp xam nga ñun nii ci liy euh, soxal Sénégalais rek la ñuy dox. Ah. lam politique la politique par essence mooy la gestion de la cité. Ah. lépp lu laal cité bi ndox mi courant bi tali yi en santé bi mais ci loolu la ñu nekk aujourd'hui ñun nous sommes dans yàlla moo moo ñu nattoo ñu dénkuñu réew mi on ne peut pas nag euh, li olof di wax kenn mënul boole tëgg tama ak wokk sa ginnaaw mënta nekk. aujourd'hui ñun nous sommes ci liggéey boo xam ne euh, ñu ngi indi ay solution ci problème sénégalais yi ñi nga xam ne dañu nekk ci opposition naturellement mun nañu wut seeni voix yu leen mën a déggee kooku on le leur concède c'est c'est c'est c'est la constitution même moo leen ko may mais du du ñu loolu du ñu distraire mukk parce que nag ñun nekkoon nañu opposition ah soo ma nee mu rassemblement bi am keroog musu fi am de mémoire de journaliste ça me pose problème parce que ñun quand même euh, kenn duñ jàngal manière xam nañ ñi nga ko doon defee mënoon nañ ko def te gars yi fi nekkoon tamit nekk fu tey xam nañ ne li olof di wax cin bokkul safañ waaw si noonu ñu desee si euh, desandi si kii di Guy euh, Marius Sagna nga xam ne dañ koo teg loxo ak it ay ñooñam mun nañoo wax ne euh, ku si gën a fës moo nekk le professeur Babacar ñu nga xam ne libéré neen ko si fan yi ñu weesu moom li lon ko li ñu koy reproché moo nekk dafa demoon ba dem auprès du grille des palais du palais mu nekk mbir boo xam ne mun naa ne yéen li nga doon bañ ba ngeen nekk ay opposants instant yi moom nga ñu nangu ba ngeen nekkee au pouvoir est-ce que yaakaaroon nga ne yaakaaru leen ne Guy Marius Sagna di nga ko jàpp nii rek juste pour la forme. mais dëgg dégg nga affaire yi xaw na dis dégg nga li ci président de la république wax keroog je pense que c'est c'est assez éloquent ñun bi ñu nekkee ci opposition kenn mësuñu gis ñu ñëw buntu palais présidentiel amul il n'y en a pas vous ne vous ne sortirez pas une seule ñëw nañ ba assemblée nationale jeunes yi ne non nañ dem pale nos leaders ont dit non. demuñu palais on rentre musuñu dem palais gii mi jóg ne day dem pale moom wóor na ko wóor yàlla na na du egg palais il faut que aussi nit ñi kenn ku nekk bon écoute am na ay loi am na réglementation nee nga da ngay marche autorisé nañ la ne la marchal diggante bi ba diggante bi waaye diggante bi bul fa yegg soo bëggee jàmm da yem ci diggante bi ñu la jox rek je mais gisuma ci problème et li ci président wax dëgg la je pense que je ba peux pas en dire plus euh, c'est un Sénégalais comme tous les autres nous avons une pensée pour tous les Sénégalais yoo xam ne yàlla nattoo na leen tey ñu ñàkk seen liberté ñu ngi leen di xalaat ñu ngi leen di yërëm di ñaan yàlla ñoo recouvrer seen seen liberté ñëpp nag. waaw deux poids deux mesures yu si am moo jaaxal nit ñi bu tax ñu libérer le professeur ak ñeneen ñi bàyyi euh, Guy Marius est-ce que nekkul tamit lu mu nekk si gannaaw Pastef wala tamit lu mu nekk euh, njiiti France dégage moo nekk loo xam ne dafay déranger un peu le est-ce que gis nga professeur mu dem ci grille palais bi non. ah ñoo àndoon de. yi ngeen wane. Ah, man en tout cas man image yi ma seetaan. je n'ai pas vu le professeur Babacar Diop dem ci Gris Palais man gisuma ñoom ñaar leen jàppandoo. oui non non non mais je suis en train de te dire je ne sais pas ce qu'il y a le dossier. Mm. mais li war a tax ñu bàyyi kii te bàyyiwuñu kii te bul fàtte ne Guy Marius il était sous liberté provisoire bu la tegee si liberté provisoire mooy maanaam lii dañu la bàyyi bàyyi ndëggandiku. est-ce que professeur rek ragalewuñ ko syndicat enseignant yi. non ban syndicat syndicat enseignant pour man sax dañu def lu ñu war a def bu fekkee ne dañu jóg di pour ñu bàyyi Babacar. waroon nañu grève pour Babacar bañ a bàyyi élève bi dem di grève c'est pas c'est c'est paradoxal parce que boo nee yow danga nga parce que kii ci ñun la bokk danu ko jàpp danga waroon grève aussi bu mu bàyyee élève yi muy jàngal dem di grève c'est pas compliqué. waaw ñu avancer tuuti euh, monsieur le ministre ñu seetlu tamit sa coalition bi nga bokk rawatina APR ay débat yu suufee. Mm, euh, xasante waaso yi euh, tamante dëmm bi mu nekk loo xam ne te yéen da ngeen jaayoon Sénégal yi un gouvernement sobre et vertueux te mun naa ne carrément loolu moo tax Sénégal yi sa adhéré seen politique loolu en tant que yow mu nekk ci biir coalition bi est-ce que doo ci am un petit pincement de cœur le le gouvernement reste toujours sobre et vertueux. ah ba léegi déggagu leen benn ministre euh, bu nekk ci gouvernement bi bu wax wax boo xam ne da ngay taf sa gamme il n'y maintenant mais mais des militants de premières heures. ay benn mag nee na ma booy sàmm troupeau nag soo yoree benn yet mën nga leen dàq ñu dem booy sàmm fukki nit di nga yore fukki yat ndax ku nekk ak jikkoom bu fekkente ne jëkkër ak jabar ñooy jote ci kër ci biir fami nit ñi duñu déggoo a fortiori un parti politique où tu as des centaines de milliers de personnes ku ci nekk nga am sa liberté parce que parti du armée aussi ku ci nekk sañ ngaa wax li nga war a wax mais liñ leen li ñuy leen di digal rek mooy kilifa kenn du ko yedd ci mbett en tout sama formation politique loolu lañ ma jàngal